donte ndaje mi yàggoon na lool ci biir mairie bu Touba bi waaye lépp mujjee naa am ci jàmm mu nekk nag ndaje moo xam ne nag dañu ko jagleeloon lépp loo xam ne jëm na ci budget bu mairie bu Touba bi Abdoulaye Kane mi nga xam ne moo jiite mairie bu woote woon mi lem ndaje ngir ñu natt ay koppar jagleel ko mairie bu Touba. woote nañu budget commune Touba euh, ci année deux mille dix neuf budget bi nga xam ne dafa concerné année bii di ñëw muy deux mille dix neuf woote nañ ko ci le vingt quatre décembre deux mille dix huit mu toll ci quatre milliards neuf cent. quatre-vingt-dix millions quatre cent cinquante mille francs CFA ci loo xam ne ci euh, investissement ak euh, fonctionnement. Abdoulaye Kedi xam ne ni mbokk moomeelam gi jot naa bokk projet bi nga xam ne moom la ñu wax Pakistan ndaje mi nag yënguwoon na lool waaye terewul budget ba mu jéem a jàll. budget bi ren mu xaw a yéeg tuuti dégg expliqué woon naa ko léegi dañu am benn yaakaar boo xam ne dañu koy séenu. muy appui bu am solo ci projet bi ñuy wax PACASEN te ñu te yàlla dogal ñu bo tu mu bo Touba bokkoon ci communes yi nga xam ne bokk na ci yi nga xam ne newoon na dana leen appuyer muy 19 communes yi ci Sénégal Touba am ci mu 9 milliards 130 millions yoo xam ne nii dana leen ko ko jox par 5 ans ci bu fekkee ne respecté na conditions yi nga xam ne moo critères yi mu tëroon maanaam te at mu nekk am na lu mu koy jox. ren nag bi mu ñëwee mu tëraloon ñu ay critères yoo xam ne ci lañ war a jaar bokkoon na ci lu ma 19 yoo xam ne yépp remplir nañ ko ba ci représenté seen compte administratif te voté ko ak voté sa budget avant le 31 décembre ak yeneen ak yeneen ak yeneen gannaaw bu ñu defee seen audit national yi nga xam ne Euh, identifié nañ commune yi nga xam ne ñu ngi ciy boole. moom ñu jiite mairie bu Touba bi na tontu ci laaj bi nga xam ne ñu dëkkee ci Touba dañ ko laajte muy marché gaar bi ñuy wàcce gerte gi bëri na ay loraange yoo xam ne da koy jiiral askan bi mu mel ni wàllu googee dañu faa amatale. bi mu nekk xam nañ ne xale yu ndaw yuy juddu poussière bi mi ngi leen di indil ay jafe-jafe mag ñi fa nekk ñi ngi am ay jafe-jafe mais waaye commune bi. pour mu déplacer leen xam nga nit da koy wax boo ne ko fii da naa ko toogal fii ci wutu ab liggéeykat booy déplacé euh, le délocalisé da ngay yëkkatee fii teg fee am nañ tuuti jafe-jafe ci commune bi ci espace parce que suuf si nag Touba dafa li may wax léegi dafa spécial commune bi amul benn barab bu mën a xëy dem dagg fa vingt hectare ne marché gerte gi toxal naa ko fii loolu commune bi amu ko. beneen seetlu moo di amul benn jigéen boo xam ne tey wala mbiram ndaje. waaye terewul boobule budget mujjee nañ caa ànd.